entraînement bu saf sap bu équipe nationale dem dem bu dënan ci yikk léegi affaire Mbappé loolu yëpp mënta jeex Barcelone am na ndam lu yaatoo yaatoo cokkoor mbuuj na teg nañ ko ci yoon ma ziar leen bégg leen Mbappé ngi ci biir xibaar yi kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam ak afiya abonnement yi ñu ngi koy sàkk ci yéen bu baax a baax yow mi ko defagul nga def ko information yu wér te wóor Aladji Malick TV mu am solo bu baax a baax ñanco international ak équipe ngeen gis loon noonu bala nu dugg ci biir xibaar yi démb nag li ma neex ci tàggatu gi mooy dañ koo tàggatu ba mu jeex lépp nag ci kaf ak ere ak béggante boo xam ne gone yi démb def nañ ko wane cafeel Idrissa Gana gay ñëw euh, fël fële la gars yi dem entraînement bi euh, fële ca jam ñaaje ca biir stade ba entraînement boobu neex na cuqur mbuuj na jaar na yoon tegu na ci temps ak heure loolee nekk mbégte ci képp koo xam ne supporter euh, bu équipe bi Euh, di Sénégal nga teyit mu nekk équipe boo xam ne gaa ñi ñaanal leen ko jàmm ndax suba jàmm dana nu jóge fii dem fële nga xam ne mooy Côte bu ko defee mën a bokk ci li nga xam ne mooy jongante ya fay am di Coupe d'Afrique boo xam ne ci sunuy loxo la nekk ku ko bëgg a fuqar ji nag da nga daj lu mburu dajuloon ci euh, taal ñu ñaanal gaynde yi ñaanal ki nga xam ne sax mooy leader ba di nekk ca bopp ba di ñancoo international léegi doonatul ñancoo national international la sama waa ji seen waa ji jàmbaari fàkk yi Mbappé na démb tamit maanaam euh, ci match bi nga xam ne doon na ko football akub équipe am. la yaatu na waaye Mbappé coow li bari na ci moom ñu ngi ci génn information yoo xam ne ni ngi koy gëstu yenn saa nga nit ku fàq fële ni ameewul noonu waaye loolu lépp mook information yooyu am waaye li leer ba leer Real Madrid jënd Mbappé ci lii nga xam ne mooy janvier bi Mbappé euh, fële nga xam ne mooy été bi. luy xew foofee lay xewee loolee moom bay bu ngeen am ci confiance bu wér ni noonu la demee te noonu lay demee Mbappé day jeexal daanaka contrat am été ba képp ku ko soxla foofu nga koy amee ndax Mbappé bëgguta rokkas boppam tëj boppam ci juróom benn weer yi ko desee dafa bëgg bàyyi ba été bi nga xam ne moom lañ dëgmal ñëw bu ko defee mu rokkasu fële ci Real Madrid loolee dara du ko dindi bu àndeek ak dogalu borom bi beneen information bi ci rax nga xam ni ma andi leen Erling Haaland ci gëstu yu bari nga xam ne def nañ ko ñun dañuy toog di gëstu rek machine bi ci la ne ne guddeeg bëccëg ngir bëgg information yu wér leen jox lu leen jox na leen doy euh, mu nekk euh, koo xam ne Haaland na euh, fële ci Real Madrid yàgg na lool Real yàgg na koo bëgg waaye été bi tamit Real am na xaalis bu bari boo xam ne car macha allah ci gëstu yi ni def ni man nañ koo jënd. fekkee accepté na loolu bu boobaa du am benn problème te dem fële ca Madrid loolee gaa ñaa ngi ko fay xaar ak loxo yoo xam ni yu sell la loxo yoo xam ni yu set ci la ci alal joo xam ne comme la guñ ko fa mën a téye foofee ca Madrid. loolu am solo bu baax a baax catalan yi nag du leen fàtte ci xibaar yi ndax démb. am na ndam loo xam ne maanaam ak bërit la rek gars yi commencé am ndam yu ama am solo loolee dana baax ci mantaalu équipe bi dana baax ci équipe bi lee di Barcelone safi moom mais nga xam ne moo ko jiite sax loolee soxla na ko bu baax a baax ndax ci weekend bi am na match yu bëree bëri yoo xam ne moom it war na koo yëngal moom gone gi fële ci championnat Espagne match yooyu yëpp ñu ñaanal ko ci lépp rek jaar ci yoon lépp nekk tawféex ndax daanaka fi mu moom Barcelone guy may yi may di dox loolee baax na ci dëkk bi ndax supporters yi bari nañ lool di ko taaxeerlu bari nañ loolu di ko xaar kon loolee daanaka dañ leen ci ñaanal euh, tawféex ak taysiir ci kanam tuuti yeneen information danañ ko lijjanti tokk ko ba mu ñor loole revue de presse bi as nag moom am na information mu indi ci Mbappé yaatal na ko bu baax a baax danañ ko jàngat ci kanam tuuti jërë ngeen jëf ànd bi am na solo jërë ngeen jëf